That eh, was his fault. et bii la bii mooy e bukki ayca bismillah nee na c'est en bronze bokk yi nag valeur courant bi deux millions la ñu ngi introduire le roi des arènes foofu waay jàppale mbasa mbasa mbokk yi tey jii ñu ngi introduire après Manga 2 après Mohamed Ndao Tyson après Bombardier après Yékini après Balla Gaye Bombardier encore Eumeu Sène tey jii ñu ngi introduire jii ñu takkal na ma tànkam pour la troisième fois ginnaaw bi mu daanee Eumeu Sène ginnaaw bi mu daanee Ama Baldé tey jii mu daan Boy Niang ñu war ko takkal li nga xam ne moo di couronne bi le roi le meilleur le numéro Modou Lo roi des arènes yéen a ngi jël. Makan encore une fois merci. Abdoulahat merci. Gaston Mbengue merci. merci la 2STV. merci Bantamba TV. merci l'arène nationale. merci le CNG. merci les artistes. merci encore Parcelles Assainies. suñu tonton Mansour Diop le grand champion tonton Bourkhane waa waa père ñëwal xam nga yow bu dul Boy Niang yow da nga am say fans yow as àdduna ñoo la bëgg loolu yàlla ko def. moom Mansour moo la ay a ngi. Ah. a ngi nii. waa Pikine a ngi nii waa Parcelles a ngi nii Alaaji Bekkaay wax ji du bari maa ngi félicité ñu rakk Modou Lo di encouragé sama rakk baax di wax li mu def grandeur bu mag a mag la fa neexoon lu ñu xamee woon yii ci plateau télé yi dañu déplacé ko indi ko fii parcelle ma neexoon muy du ñëw mais mu ñëw ànd ak ay parents et ñoo ngi koy ñaanal bu baax a baax di ko kontaanee tor lamb gis na moom sama nit la bu ñu dajee maag moom dañu tooñante kafre làmb la foo la ci def rek pour neexal la woon mais ku ma respecté la ma ko ku ma respecté la ndax la di ko ñaanal li allah yàlla defal ko xéewal ci kanamam bu baax a baax lii du dara ci sport parce que man sama première combat royal ak Bombardier ñàkk yàlla dogal jénguwaat ñëwaat ba yàlla def lii moom tey xale bu ndaw la dafay toog a ba tax na lu ko desee moo di ko ci ñaanal yàlla defal ko ci yu bëree bëri di remercier encore suñu baax muy waa Rock Énergie mel ne coach Pambay ñoom per ñu ko ñoom Ibou sama ñoom Suka ñoom Lato ñu mbëru parcelles yi tamit ñu ànd ak boy ñaa yëpp vraiment ñu ngi kontaan ci baax a bi bu wax dooy jën ndox la yéen yéenay tax ñuy sonn tey liggéey bu ñu leen xalaatee bu doon benn la dañ koy def fukk ba tax na yéen kenn amul seen fay leen di ñaanal yéen it incha allah yàlla defal leen ay xéwal yu bari bari bari bari vraiment kontaan nañ daal jox suñu béykat yi. waaw ñu ngi nuyu waa Pikine di nuyu mbëri Pikine yëpp di nuyu mbëri Sénégal yëpp di xam ne làmb lii rek la li boo ñaari wax bu jeexee jeex na làmb làmb da ngay làmb daj yi nga làmb doo daj ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal tamit ki waroon ci teew di premier ministre Amadou Ba ñu koy ñaanal moom jàmm di ñaanal autorité Pikine yëpp promoteur yi tamit ñu ngi leen ñaanal yàlla may leen am doole mën a tëgg ay combat si kàttanu yàlla si barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf lii mooy kàddu yi nga xamante ne nii dégool yëkkati na ko di bàyyi booy ñaa Modou Lo dégg ngeen li mu tontu décoré na ko jox na ko lu mu ko ñawe ñu continuer décoration yi nga xamante ne nii moom la Modou Lo yéene def ñi nga xam ne ñoo ko mus di accompagner ma ciy ñaanal kenn ko xam ne moo di Moussa Yacine ba ma xamee Modou Lo ba léegi Moussa Yacine a yor galañ génneel comme tëgg moo xamante ne nii ñëpp gis nañ ko ñu ngi lay ñaanal yàlla yokk sa diggante seen diggante yàgg yàgg ci barke yonent bi ay ayca